présidentielle ba yóbbu nañu ko ba fukki fan ak juróom ci weeru décembre président de la république itam dina nekk ci postam ba keroog muy jox lenge yi ku koy wut ci nguur gi. lan moo wutale soldaar bi nga xamante ni dafa sol tenue jël ngànnaay dugg ci palais génn président doxul constitution ak ki toog ci palais bi. jaar ci assemblée nationale duxul constitution ñaar yooyu yëpp coup d'état la. projet bi daanaka député ya nekkoon ci assemblée nationale yëpp ko voté téeméer ak juróom ñoo ci ànd kenn rek moo ko bañ woote ko projet de loi bi nag député yu opposition fekke ko ndax nag takk der yi ñoo leen génnee ci biti. njiitu assemblée nationale nag moo sukkandiku ci article 53 bu règlement intérieur ngir woo takk der yi ñu génne député opposition yi lé gannaaw nag bu mu amee ay blocage ci ay waxtu député opposition ba nag li ñu doon bañ mu di vote bu amul débat mi nga xam ne majorité bi moo ko proposé jàpp nañ ay député du mën nañ leen toroxal nañ leen wàññi nañ leen seen sutura fii nga xam ne mooy suñu bërëbu liggéeykaay fii nga xam ne nee nañu fi sàmmee seen worma fi la sàmmee seen ngor présidentielle mi nga xam ne nag ci ñaari fukki fan ak juróom ci weeru février bii lañu ko waroon amal daq nañu ko ba fukki fan ak juróom ci weeru décembre bu atum 2024 ci samedi gi ñu weesu nag gannaaw kàddu ga mu jëloon wax ak askan wi njiitu réew ma dafa waxoon ne dina taxawal ab dialogue national ngir ñu mën a am ab élection bu inclusive bu jaar yoon waaye nag woote bile ku moywul principaux leaders yu opposition ba duñ ko wuy si